te mu ngi nii def nañ ko gagné nañ tey su fi te fierté la si ñun daal te bëggoon nañ ko trop nag bëggoon nañ ñëw ba fii jël kii bi tournoi bi yóbbu ko lycée Yeumbeul te loolu lañ bëggoon te yàlla defal nañu ko incha allah en tout cas daal ñun daal ñu ngi nii daal mm, ngi ñaan képp ku bëgg a bokk def athlétisme daal na ñëw ñu ngi koy koy bu baax ndax mm. athlétisme moom sport bu baax la te day defaat sa yax tamit te da lay permettre tamit ngay def ay kii yu bëri moo noonu la rek affaire bi Euh, na laal ko mënee wax ki la dal jom la rek dañ ma dañ ma ñu koon gagné 80 mètres mané bon 400 mètres bi baax na parce que c'est un point fort la mën naa koo dabi fofu non moo tax avec l'encouragement aussi de mon coach affaire bi da facile ci man quoi motax tax. waaw organisation moom baax na moom impact lépp nice c'est bon moom organiser euh, genre qui sportif ni invité qui jeune pour ñëw wone sen lu ñu mën rek c'est bon moom alhamdulilah. Eh, yaa am ay athlète nal amna ay athlète yu bëri yo xamni euh mun nañ leen ñoo xol Léopold genre fa la compétiré amna fay athlète yu excellent

mane ne est-ce que dinaa gagné posé wu naa question bu nekk après ma xoolaat ma ne comme que ñi gagné man tamit je peux le faire mën naa gagné mun naa euh, yóbbul sama école trophée au moins. baax la na opportunité la ñu ñëw wane suñu talent euh, wan ni Sénégal bëri na ay athlètes bëri na ñoo xamante ne nii ay sportif lañu ñu euh, daal ñu wane suñu talent daal ñu jël ñu mën nañoo sax indi Sénégal loo xamante ne nii kenn mun na ko fee indi bu ñu bu ñu bu ñu gën a kiiwee bu ñu gën a encouragé daal defal stage yi tout ça. Content rek content rek parce que en fait je suis là comme juste coordinateur mais euh, on a un groupe qui vraiment gère les athlètes et les autres établissements aussi on un euh, encadreur donc on sent que boy bëgg activité mais vraiment c'est comme ça que nous avons détecté détecter talent comme ça dans l'avenir nous nous des Gakou d'autres Gakou d'autres Amadou Gakou parce que depuis lors ba pas kenn le record sur 400 mètres donc euh, pour moi, vraiment il est temps pour que nous ayons une chance pour nous exprimer nous nous suba ñu détecter talent nous compétir au niveau international Waouh, waouh, waouh, le problème bi de moi, L'infrastructure infrastructure yi moom Le traçage de terrain ça nous a pris vraiment beaucoup de temps toute la journée, la matinée du mercredi, on est là jusqu'à 14h. Aujourd'hui, ce matin, on est là, on devait commencer à 9h. Jusqu'à 11h, on n'a pas commencé parce que les infrastructures font défaut. Et maintenant, après l'après-midi, on, on aura les mêmes problèmes. Donc, ce qui donne à penser que les infrastructures font défaut. Et vraiment, c'est les ministères, les bailleurs, les, qui, les dons. Peut-être peut on pourra mieux investir dans ce domaine-là pour qu'au moins nous mën détecter des talents très tôt. Nous ñu investir les moyens surtout par exemple il y a aussi, vous ñu vous euh, a dugal moyen ci biir euh, espace scolaire par exemple peut-être on pourra détecter à bas âge les les les athlètes et de là on pourra les encadrer au moins ñu mën comme nous ko des Gakous.